il est très important aujourd'hui pour nos acteurs surtout nos fonctionnaires les hommes d'État et les politiques dégg naa ko ci ay hautes autorités mhm. on ne parle pas d'immigration clandestine depuis le pacte de Marrakech le jargon a changé on parle d'immigration irrégulière pour suñu politique yi mhm. pour suñu homme d'État yi un homme d'État buy wax waxu immigration clandestine ci discours officiel c'est ridicule mhm. donc loolu nañ koy jàngat jàngat la bu ñu leen di jox non c' est c' important. parce que lestik yi dafa important ci discours yi. Mhm. surtout bu ñuy dem bitim réew. pour ñuy mettre à jour. et que parfois j'ai l'impression que ñi yore le dossier de la migration irrégulière à un certain niveau de l'État ils sont un peu en retard par rapport à l'actualité de la migration mhm. loolu aussi fait la bu ma jëlee analyse yi fi génn yëpp mhm. pense qu'on a fait la situation globale de la migration li ñu fi wax rek mooy situation migration introduction développé nañ ko là où le bas blesse fan la je suis parfaitement d'accord avec vous man bëgguma ñuy politiquer ñuy utiliser la migration irrégulière comme arme politique mm-hmm. muy nekk ping-pong l'un te dit que bon tu avais promis ça fait maintenant cent jours qu'est-ce que tu as fait dans les cent jours on peut pas comparer cent jours à douze ans donc vous voyez bu ñu dem si clan ci ci ci ci terrain boobu. Mhm. parce que nous ça ne nous arrange pas nous nous voulons des solutions factuelles. Mhm. pour ceux qui sont là pour cent jours de nous dessiner <coughs> vraiment un chemin d'espoir pour ñu jàpp ni que ils prennent cette question à bras le corps. moi je suis de la coalition j'ai accompagné la coalition sur la question de la migration j'ai échangé avec des experts des membres éminents de la coalition sur cette question et xam naa mais loolu politique la. Mhm. man état lay waxal. fonctionnaire ministériel bi laay waxal gis nga li politique bi politique bi ay promesse la ay lii la mais li nga xam ne mooy factuel mooy li réel je veux dire que y une solution. c'est quoi? y a une alternative par rapport à la migration irrégulière. les données que nous avons exploitées le Sénégal peut exploiter maa ngi koy wax te de parce que dañ ci liggéey natt ko xam. am orientation yi ne lii buñ si jaaree waxtaan si Sénégal mën na exporter Sénégal mën na accompagner chaque année trente mille jeunes ñu génne dans le cadre de la migration sûre légale et contrôlée donc alternative am na. mais comment comment trente mille. mais comment. lu ñuy waxtaanee la. sànq Thiam dafa développé lu am solo. Mm-hmm. mais tey bu ñu bëggee wax waxu immigration irrégulière te amoo sax. ki nga xam ne euh, dafa bëgg a dem jaaree ko si yoon bu légal bi yoon bu baax bi amul sa possibilité. Mhm. dem déposer ji dossier am ba ñuy nee dañ nangul nañ ko walla bañ nañ ko c'est-à-dire le rêve l'intention même est refusée te suñu autorités yi xam ko mooy ni que amoo perspective déposer ji visa pour des problèmes de rendez-vous les consulats yi fi nekk boo leen waxee ñu ne dañu hacké suñu système. hacké nañ ce système pour des pays développés trouver woo beneen alternative parce que le système est hacké rek tu ne peux pas trouver beneen alternative il y une très forte sollicitude il y une très forte demande et vous ne trouvez pas et ça concerne particulièrement les pays de l'espace Schengen mais nekkul est-ce que foofu nekkul ne foofu état yi ñoo laisser faire mais fa laa jëm c'est-à-dire aujourd'hui quand te dit que man mënuma si dara c'est un problème de souveraineté sama réew la nii Mais là où tu parles de problème de souveraineté, il a une question de sécurité nationale qui se pose. man je dis le dis à travers vos antennes et je le dis fulla ak fayda bi si am soit c'est le ministère de l'intérieur qui prend ses responsabilités pour des questions de sécurité nationale convoquer les consulats yiy def loolu on trouve ensemble une solution du problème banditisme système cybercriminalité ok le système est bloqué mais trouvons autre alternative pour répondre immédiatement à cette question qui est cruciale mhm. dañu téye sa passeport pendant trois mois pare si jox la réponse bu négative l'année il y a en 2022 la France a reçu par l'intermédiaire de seen entreprise boobu di jël question yi cent cinquante mille du ma ko tudd xam naa tur bi cent cinquante mille demandes de visa sur les cent cinquante mille demandes de visa vingt cinq mille visa lañ si joxe. cent cinquante vingt cinq mille lañ si joxe. cent vingt cinq yëpp da ngay jël cent vingt cinq nga multiplier ko mooy frais frais frais. frais de visa bi quatre vingt mille. loolu mooy nekk aide au développement bi ñuy delloo ne dañuy dimbali. ñun ñu jox ñu jox surtout xaalis la donc système migration tey migration dafa nekk enjeu géopolitique international c'est parce que bugguma Euh, Thiam li mu développé dafa fekk développé na li ma bëggoon wax man ma yóbbu ko tey si beneen contexte. Mhm. parce que li Thiam di wax su ma si jaaraatee répétition la on est en phase totalement li mu wax laa waroon wax. Mhm. mais tey dam koy yóbbu si contexte bi nga xam ne lan moo tax ñu joxe suñu ay visa lan moo tax xale yi mu ñu dem gis na suñu politique yi. Mhm. sunu dirigeants yi. suñu dirigeants yi les responsables les hommes d' état ñu nekk au sommet de l' état nañuy di am àq askan bi. xam nga lu tax yow boo ñëwee tey am nga sa passeport diplomatique. sa mhm. jabar am na passeport diplomatique am nga contact bii war a tax sa doom wala sa jabar boo bëgg a yóbbu. nga yóbbu nga yóbbu ko. Mhm. au même moment doomu baadoolo bi. Mhm. doomu béykat bi doomu sàmmkat bi ki nga xam ne dafa am intention am rêve. voyager moom amul benn alternative parce que tere nañ ko sax pour mu déposer visa te yow mi war a faj loolu yow amoo difficulté yooyu. c'est ça la réalité de la migration irrégulière. te loolu tant que saafara luñ ko dañu nekk di nekk si ay kasam kasamu ki beneen alternative tey munoo ñëw toog ne xale bi bul dem dañu war a tabax ñëpp bu ñu demee sur dix familles sénégalaises leen neuf am nañu doom am nañu jarbaat am mhm. nañu mbokk am nañu kenn ku mhm. nekk bitim réew te kooku day participer économiquement socialement si mais dafa am lenn loo xam ne sànq junju nga ko mais la migration c'est un droit naturel mm une répétition encore les oiseaux les oiseaux ils migrent mm -hmm. les animaux transhument et pourquoi les hommes ne voyagent pas c'est un droit naturel ah, tu as touché les questions de rémunération mais parfois si les si, si les conditions Euh, de travail de rémunération c'était vraiment équitable balayeuru Dakar lan lay wuti Paris bi doomu dakaar lan lay dem Paris di di di di balayi ay mbedd pali non parce que dañu gis dañu gis kenn ku nekk bitim réew après li ngay wax mu nekk fa doon balay mu ñëwaat fii di dund boo xamante ne dund bu bu am bu high level boo xamante ne peut-être ñu mun fu mu nekkoon avant ak fu am na gën a différence peut-être est que nekk tamit situation bi ni mel aussi tam mën par rapport ak rémunération yi emploi il faut que ñu résoudre ko si on veut vraiment xam nga si on veut vraiment résoudre ce problème et je vous dis que y a des alternatives et wallaahi am na alternative mm. léegi nag ñi toog si gouvernement bi lu ma ne mm-hmm. sax si nguur gi ñi toog si gouvernement bi mm-hmm. su nekkee ñoom politique bi ñuy dé bi ñuy incarner Union européenne moo leen ko dicté xaalisu union européenne la ñu defee suñu politique migratoire te union européenne bëggul suñu doom yi dem wala dafa bëgg a tënk suñu doom yi wala dafa am ay règles yu mu choisir pour suñu doom yi dem yaakaar ngeen ni kon dañu régler problème bi contradiction là voilà la réalité de ce dossier ça fait ça fait maintenant dix-huit ans je suis dans ce dossier mais dix-huit ans je suis dans ce dossier présent parce que bu ñu xool li nga xamante ne moo Euh, immigration euh, irrégulière bi parce que mu ngi commencé année 2004 2005 jusqu'à présent ngay trouvé gu ñu solution tamit nga nekk si 18 ans tamit boobu ba tey xale yi fu ñu tàmbale ba tey dafa mel ni day day day day doog a bees. ans ñu ngi leen di wax yoon bi 18 ans ñu ngi koy wax waxu yoonu solu solutionner le problème et je vous dis encore je le répète c'est à la je le dis soxloo ma poste. alhamdulilah rabbil ay fonctionnaires yu euh, li may gagné par weer moo ëpp yoon mën naa fay. alhamdulilahi rabbil alamin yàlla sutural na ma on ne le dit pas pour chercher des postes mais impliquez-nous par rapport au processus de résoudre ce problème si on veut résoudre ce problème c'est pas avec l'Union européenne avec le système de l'Union européenne qu'on va résoudre le problème ma ne la sànq yaa koy wax euh, moo tax may bëgg politique yi politique yi politique yi laa wax mhm. bu ñuy di xëccoo di tiirante ci question boobu nos enfants benn exemple laa leen di nee nga en l'intervalle de trois jours ya y eu presque plus de cent morts en l'intervalle de trois jours ya y a eu presque plus de cent morts dans euh, euh, l'océan Atlantique egguñu sa Méditerranée cent morts gisuñu tiitu autorité buy présenter condoléance ça fait presque plus de dix ans cette vague meurtrière si nos enfants ont disparu dans le fond de l'océan dans le fond de l'océan Atlantique et de la Méditerranée certains dans les barrières de Ceuta et de Melilla mm -hmm. aujourd'hui ils sont en train de se tirer par rapport à l'AES mm -hmm. pour conflit politique c'est pour cela je vous dis que c'est au-delà de, de, ce qui est l'AES CEDEAO revenez CEDEAO revenez c'est qu'on demande à des chefs d'État de revenir au même au même moment des enfants de la CEDEAO sont morts au fond de l'océan mm. Atlantique on n'a même pas pris un jour ou bien un sommet de le de de de de de du CEDEAO pour présenter les condoléances aux victimes et même une journée mm-hmm. de deuil national pour l'ensemble des pays pour nos enfants qui sont restés dans le fond de la Méditerranée c'est pas sérieux